ñu leen di jaajëfal sunu mbokk internet bi ñuy suivre dañuy topp ci in people ni ñu ko baaxoo di def ak ñëpp fas yéene leen a dalalaat benn gan ñu koy tuddee Seydina Ousmane Tawa Tawa Seydina Ousmane Tawa Tawa nag mën naa ne du ma ko présenté di xam ngeen ko donte suñu émission gëj nañoo def émission yéen a ko soxla di koy laajte ñu fas yéene indiwaat ko mu leen di defal li ngeen xam ne di ngeen di ci mën a jëriñu. Seydina Ousmane ñu ngi lay siyaar di lay dal ci 221 people. waaw sëñ Mouhamed maa ngi lay euh, nuyu di la ziar di la jot sa wàccuwaay di ziar di nuyu euh, ahlul internet di nuyu sénégalais yi sénégalaises yëpp maa ngi nuyu di leen ziar nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp. di ñaanal nguur gi yàlla may ko suñu président de la république yàlla may ko kattan boobu mu mun a eggali liggéeyam ci yéenam. ci euh, Sénégal dinaa na képp ku yore euh, raayee si Sénégal ñu ngi ñaanal jàmm jàmm wàcc si yow ba nga mën a àggali sa liggéey ñu nekk ci hôpital feebar ñu ñaanal yàlla yàlla yàlla yëkkati ñu ne ci kër yi tamit feebar ñu ñaanal yàlla yàlla yàlla yëkkati yàlla may leen fan yu gudd wér gu yaram ko mboolem jullit at bi mu nekk atum euh, naataange atum jàmm atum xéewal macha allah suma jërëjëf euh, Seydina Ousmane Tawa Tawa ñu ngi lay fay bu baax di lay dalal ci deux cent vingt et un hmm, People hmm, hmm. comme ni ñu ko fas yéene defee ñëpp nag damay njëkkee ci benn euh, ponk ponk mu mbokk ci wàllu jigéen du ma nee jigéen nag jigéen ñi nga xam ne dañoo am yenn jafe-jafe de mën naa ne tawat la ci ñoom mu bokk ci jigéen ñi nga xam ne bëgg nañu borom kër te mu jafe leen ñu bëgg doom te mu jafe leen te presque léegi ñu dem ba ci seen à l'âge de ménopause jigéen ñi am tawat yooyu noonu suñu la seet si woon Seydina Ousmane nan ngay jëflante waaw jigéen macha allah jigéen yooyu noonu damay gis ne euh, loolu dafa am benn rawxaan bu leen topp bu leen sonal maanaam képp koo xamante ne jamono bi toog nga benn âge bi soxla jëkkër mu nekk sa xel mu nekk sa xol Euh, ñaan euh, jour boo ma seetee incha allahu rabbi fan yu ngat dina am ku ngoro incha allah rabbi dina am ku ku la jël comme soxna parce que xool nañ solution bi xool nañ lépp la la moo ko waral moo tax ñu ñëw pour pour wax ak jigéen wax nit ñi ñu mën a xam ñun euh, lu ñu yore daal parce que ñu dañuy ra ay rawxaan la ñuy liggéeyal moom moom la ñuy xam xam nañ solution yëpp képp jigéen bu bugg am jëkkër mu tëkko bu jàkkaar ak man incha allah rabbi yàlla may ko jëkkër képp ku jigéen bu nekk ci seem am problème wàllum doom bu jàkkaarloo ak man incha allahu rabbi fan yu gàtt ah yàlla may ko doom incha rabbi mhm. li nga wax nag euh, mën naa ne joxe woo jour joxe woo weer joxe woo at. Mhm. mais nee ci lu gàtt lay. ci lu gàtt lay doon ci lu gàtt xam fan nga koo wéer ndax. da ngay def ay cangat yoo xam ne cangati jooni jooni lay doon wala loo xam ne da koy suuru. waaw kooku kooku kooku dama koy bindal suratul Aali Imran laa koy bindal mu takk ko soo ko takkee rek incha allahu rabbi dina mun a am dina mun a am doom. koo xamante ne dafa am bu am jëkkër su ma ko bindalee day sangu naan bu sangoo naan rek incha allah rabbi ina am euh, jëkkër ci lu mu gën a gaawee daal. Mhm. jërëjëf jërëjëf euh, Seydina Ousmane ponk boobu am na solo dañuy jàll ci beneen ponk. mu mhm. bokk ci wàllu mën naa ne jafe-jafe la. te ñu mhm. bëri fi ne ñemewuñ ko. mu di wàllum am lante maanaam ba problème yoo xam ne ci prison la bokk. wàllum jafe-jafe am lante. waaw xam nga xam nga nit nit dina toll foo xamante ne nii cat mën na topp. cat bu la toppee mun ngaa lekk mu mun nga nekk euh, sa place yaa ngi liggéey wala sa kër nga am njaboot yu barkel wala nga am euh, liggéey boo xamante ne ni euh, ñëpp ñu si teg seen bët cat boobu mun na la topp te cat boobu bu la toppee benn prison moo ñëkk taxaw say mbir wala nit ñi di la xeex wala nit ñi di la yàqal loolu gën a taxaw ci mbir daal moo tax mu ngi loolu bu ku dem ba loolu bu ko yoot rek incha allah rabbi na defaruwaat jour bu ma seetsee rek wala sa koo xamante yoon da wër wala ko xam ne dafa nekk ci yoon sax buggu yoon teg ko teg ko loxoom bu jàkkaaroo incha allah rabbi yàlla dina def ci moom jàmm dina génn fu mu nekk incha allah. jërëjëf ci beneen ponk la ñuy jàll mu bokk ci wàllum papier duñu ne papier nag suñu xel day foog ne. Mhm. lépp fii lay yem ci biir réew mi jafe-jafe kayit yi. mais mhm. ah kay waa euh, bitim réew bokk na ci ñu leen di woy les émigrés dañu am mhm. problème lu kayit ñooñu. ñu bëgg seen jafe-jafe saafara. waaw soxla ñenn waaw ñooñu moom am naa ci ay xarit am naa ci ay wëllëre ba tey am na ñoo xamante ne nii vacance bii di 15 euh, de décembre bi fii leen ko passé yàgg nañ fa am nañ fa juróom ñaari at ñi am na fukki at ah yàlla def na ne boole na ma ak ñoom sama xam-xam yàlla barkel na ko si ñoom ba ñu am seen kayit bay ñëw si jàmm maa ngi si jëflante ñu bëri incha allah rabbi képp ku soxla rek buñ jàkkaaroo incha allahu rabbi mu dama lay bindal ay ay alquran yoo xamante ne ni soo ko sangoowee rek incha allahu rabbi foo munta nekk dama la koy bindal envoyé la ko foo munta nekk fii ba Mexique fii ba Brésil fii ba Argentine fii ba Italie foo munta nekk dama la koy envoyé boobu wa saabiquna saabiqun ulaa'ika muqarrabun laa lay bindal su ma la ko bindalee am sunguf yu ma la koy yu ma boole ma envoyé la ko boo koy sangoot incha allah rabi di nga am ndam ci katta suñu borom di nga euh, <coughs> ponk yooyu leer na nañ mm-hmm. ñoo ko bokk déggandoo ci beneen ponk laay dugg mu di cat mm-hmm. cat nag baat bi dama koy dégg mën naa ne chaque jour dama koy dégg mais mooy cat mooy lan <coughs> waaw cat mooy mooy lan lay def ci nit ki du du dee ku dox ñu gis ne xool ko mën koo ràññee ba ne kii cat a ngi ci moom mm-hmm. lan lay def ci nit ki waaw cat maanaam cat làmmiñ la ak bët cat làmmiñ la ak bët nabi sallallahu alayhi wa moom euh, nee na moom làmmiñ la gën a ragal ak ak euh, bët nit koo xamante ne nii am ñoo xamante ni suñ solee dara sax bët euh, bu ñu la xoolee rek am na bët yoo xamante suñ la xoolee rek baaxul ci yow loolu moo tax ñu la expliqué loolu moom bët yooyu noonu mooy mooy bari si yaram bi ba cat nekk ci yow man cat su ma la xoolee dinaa xam ne cat moom moo la topp man nit bu ñëwee balaa dara ma ma koy balaa ma koy jox dara dama koy njëkk seetal xoolal ko ay mbiram ba gis ci moom loo xamante ni daal solution bi suñ ko si defee incha allah rabbi yàlla di dina ko faggal lépp loo xamante ni mu ngi ko ragal wala yàlla sottal ko lépp loo xamante ni moom da kaa bëgg incha allah jërëjëf mhm. jërëjëf ci beneen ponk mu ci wàllum liggéey tubaab naan ko travail maanaam mhm. bëgg liggéey ñoo xam liggéey ba sonn fu ne mën naa ne fëgg nañ fa bunt mhm. mais pour ñoom problème pour ñoom liggéey jafe problème la ci ñoom jafe na ñaan lu nañu fu ne itam duñu seet ah. ku mel ni yow waaw loolu moom ñooñu moom mooy ñu am ñu am seen ay diplôme am seen shahada am seen euh, loo xamante ne ni mën nañ ko déposer pour am liggéey mu tëleen loolu mën nañu wax ne blocage maanaam maanaam blocage moo leen dal daal mu nee na cat moo leen topp ci loolu parce que bu ñu ko waxee jàng wax ji commencé na si si ñoom ñu def formation wax ji dañu si ñoom wax jooju nag bu rek ci a ci lay manifesté ñëwee su ma la càngatee rek yàlla di am di nga am ndam fi fi ngay liggéey incha allah jërëjëf mhm. jamono ji léegi nag mën naa ne képp ku yëngatu bëgg na lu bokk ci wàllum bayre ci lépp loo nekk nga mën ci am tawféex mu gën a yokk bare bu boobu moom ku ma seet si moom dama lay bindal surtout Youssouf Youssouf alayhi salaam Youssouf man dafa amoon bayre. Mhm. Youssouf am na noonu nu mu koy bindee su ma ko bindalee ba pare jox la ko mais bayre dafa war a ànd ak bayre nii rek nit ñi di la coow di la coow te protéger sa yaram cat ak ak làmmiñ loolu dama dama bind bayre boo xamante ne fépp foo mun a dugg nit ñi dañ lay bëgg góor ak jigéen dañ lay bëgg mag ak ndaw tamit dañ lay bëgg dañ lay sopp te këpp koo waxal wàllum projet wala waa wàllum liggéey cofeel yi dinañ dugg dina ñëw si seen diggante ñaar ba mu fajal la sa soxla. Mhm. incha allah jërëjëf ci ponk d'actualité laay jeexal. mu di mhm. at mu bees mi ñu dugg. Mhm. Euh, bëggoon naa cee xam maanaam sa gis-gis lan nga ci gis. at mu bees mi waaw at mu bees moom gis naa si. ay tolof tolof yoo xamante ne ni mun na si ñëw. déggoo ay. tolof tolof. tolof tolof waaw maanaam tolof tolof ci famille ci fami famille waaw ci kër yi ci famille. parce que damay gis géej bi. ah dina yëngu. waaw maanaam képp kuy dem géej jamono bii nii nii na nga xam ne il faut nga ànd ak su ah, ànd ak euh, musliwaay bu dëgër boo xamante ni yàlla mu mun na la aar parce que jamono bi géej bi moom. Mm-hmm. dafa dafa dafa dafa yëngu. Mm-hmm. li waaw ci rawaxaan yi rawaxaan yu bëri yu soxor yu ëpp. Mm-hmm. ñu ngi basé wu jamono bi ci géej bi. xam jamono bii nii rawaxaan yi dañoo lëkk ci nit ñi dañoo ñëw ba bu bokk ci famille bi ñëw ba bu dugg ci doomu aadama yi léegi nag dañ ko def dañoo tuxuwaat dem ci. géej bi. Mhm. année année yi passé mën nañu wax ne deret deret moo tuuru. Mhm. deret tuuru na lu bari mhm. accident yi bëri na cat bi ñëw na. mais nag jamono bii nii nii mën nañu at bu bees bi moom at ndox bi la. atu ndox mi la ginnaaw loolu gisoo daal sarax yooyu tegtal lan am na sarax yoo xamante ne ni euh, suñ ko defe daal incha allahu rabbi yàlla mun na leen musal si si euh, loolu wa sarax yooyu na mun na wax ne ni ut gerte gerte kemb ut ut ut nag wala dara. ree ko ci tefes géej bi ñaan yàlla sarax yàpp yi suñu ko defee incha allah yàlla mën na def tawféex ci yéey ci géej bi daal incha allah. Mhm. jërëjëf euh, ñu lay bàyyi nga tàggatoo ko ñu lay seetaan di lay topp ci suñu chaîne bi ñu naan ko 221 people. waaw waaw 221 moom maa ngi ñaan yàlla tawféex rek maa ngi ñaan yàlla yàlla yokkute ak jàmm wàcc si yéen ak euh, seen liggéey bi réussite. Hmm? ba ëpp seen njort ci barke alxuraan karim dañaa la képp ku seetaan émission bi rek maa ngi la ñaanal yàlla tawfiix waaye wàcc si yow daal maa ngi ñaanal yàlla euh, sell yàlla lépp loo jàmm yàlla yàlla yàlla nangu yàlla fi yàlla yàlla yàlla wàccee Sénégal jàmm ah, boole xool yi boole nit ñëpp nekk benn yàlla bu ñëpp noonoo yàlla ñëpp bëggante nañ euh, gëm yàlla nañ yokk euh, jàmm yàlla bi ci barke alxuraan maa ngi ñaanal yàlla yàlla wàcc jàmm ci famille yi ci euh, ci doomu aadama yi ci école yi ci entreprise yëpp yàlla yàlla wàcc si si euh, jàmm wàcc si yéen bi jaaru sallallahu alayhi wa